dale nag jàmm ñoo ànd xëy yér yéene ñu xëy ndoo yéene kaay gi di vox populi xëy duñu xibaar naan ñu conseil constitutionnel ginnaaw bi ñu jëlee ab dogal wax président Macky ak waa assemblée nationale xamal leen naan yi kenn mënu ko dàq dañ see tekk daal di sant président ci anam mu gën a yembee yéene kaay gi ne nag ginnaaw nag dogal bi nga xam ne conseil constitutionnel daan na koy jël ñi nga xam ne nag ñooy waa CEDEAO ñoom daan nañu sant président Macky Sall ngir mu jëfee dogal bi nga xam ne conseil constitutionnel daan na joxe waaye tamit ñi nga xam ne ñooy waa union européenne ñoom mu fe dogal bi ne conseil constitutionnel da ko daal di jël ñi nga xam ne ñuy waa états jëfe dogal bi nga xam ne ñuy waa français kasalika yéen a kaay gi nee conseil constitutionnel santé a kaay gi de l'info wax ne dogal bi nga xam ne conseil constitutionnel jël na ko dinaa ko jëfee moom président Macky Sall daan nay ji ngir nag amal ay consultation ngir nag daal di organiser élection yi ci anam bi mu gën a gaawee yéenekaay gii di Le Quotidien xëy duñu xibaar naan lu jëm ci toog waxtaan ngir nag jàpp bantat la ñuy dem ci élection yi loolee mënut a ñàkk yéenekaay gii di Le Peuple Quotidien ñu xëy fekk fa Aly Ngouille Ndiaye mu koy dëggal Aly Ngouille Ndiaye daan nay wax ne élection yi moom mënuñu ko organiser te tooguñu waxtaan yéenekaay gii di wal Fadjri xëy ñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñu waa Union européenne ñoom nag daan nañu sàkku ci état bu Sénégal ngir ñu ubbi ni mu gën a gaawee ci nga xam ne faat nañu leen ci yi nga xam ne moo amoon ci réew mi yéenekaay gii di Tambour Quotidien ñu xëy fekk fa njiitul parti politique fulla ak fayda daan nay rafetlu bu baax a baax posture républicaine bu njiitu réew mi di président Macky Sall daan wax tamit ne président Macky Sall nangu gi nangu dogal bi nga xam ne conseil constitutionnel joxe nañu ko taxawaay bi ci président Macky Sall am ñoo ngi koy jaajëfal ndax président Macky Sall jamono ji taxaw na temm ngir nag organiser li nga xam ne mooy élection yi ñoom parti politique fulla ak fayda nee nañu ngir nag daal di participer ci consultation yi ngir ñu mën a organiser élection yi waaye tamit ñoom nee nañu la nee nañu conseil constitutionnel ñoom seen constaté nañ ne élection yi kenn mënu ko amal ci date bi ñu ko njëkkoon a jàpp maanaam 25 février waaye tamit daan nañu si yokku ne ñi nga xam ne ñu waa conseil constitutionnel jox nañu président Macky Sall carte blanche yéen kay gi lu jëm ci élection présidentielle yi nga xam ne moom lañu ñu dàq kenn déggu ci Idrissa Seck waaye nag responsable politique yi nga xam ne ñoo bokk ci parti réew mi ji am nañu lu leen jaaxale yéen kay gi de l'observateur xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñu waa Benno Bokk ji dafa mel ni amuñu ay argument ñu teg ci taabal ji wala malaise dafa am ci biir Benno Bokk Yaakaar

sàkku jamono ji maanaam ñu daal di li nga xam ne mooy calendrier électoral bi yéen a kaay gi di ak enquête xëy duñuy xibaar naan ñu yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ban date koy organiser ñi nga xam ne ñuy waa société civile bi ñoom yëkkati nañu seen kàddu am na ñaari date yoo xam ne ñoom jàpp nañu ko nee nañu 3 nañu ak ministre de l'intérieur te nag bi ñu dajee ak ministre de l'intérieur bi ñu waxtaanee ak moom ministre duñu xibaar nañu ndax yéen a ngi xalaat Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye génn ci kaso bi di campagne ñoom ñaar ñu def ab duo di campagne journal bi nee na ab scénario bu redoutable la maanaam loolee kenn mënu koo attan ci réew mi Ousmane Sonko rek muy campagne yéeg ci kaw oto bi maanaam di saayi saayi loxo yi journal bi di bés bi nee na en desal ñaar ñi moom bu ñu àndee ab campagne ci réew mi ndax nit dina leen attan scénario redoutable la ko ngeen la mu xamle mooy dialogue bi ngir ñu dem ci wala ñu toog waxtaan maanaam mboolem ñi nga xam ne ay détenu politique lañu danañu leen libéré génn leen ci kasu bi danañu génne Ousmane Sonko ci kasu bi génne Bassirou Diomaye Faye ci kasu bi ba pare tamit dinañu leen wax lan la waxtaane te la waxtaane mënut a génn maanaam amal ay élection ci ni nga xam ne moom la gën a gaawee waaye tamit élection yoo xam ne maanaam ñëppay bokk teg ci élection samp ab laaj nee na pourquoi Macky fait tout ce que veut Ousmane Sonko maanaam Macky lan moo tax daal Ousmane Sonko jamono ji lu mu bëgg rek Macky Sall defal ko ko Ousmane Sonko moomee fan yéen a kaay gi de l'info ak Vox Populi ñu xëy fekk fa Khalifa Ababacar Sall Khalifa Ababacar Sall nag jamono xam ne jamono ji ñoo ngi di génn ci kasu bi Khalifa Sall démb bi muy janoo ak taskatu a kaay gi di xëy du ñuy xibaar naan ñu Khalifa Sall kay li mu bëgg a wax mooy ndax Ousmane Sonko waxtaanul jamono ji ak Macky Sall ba ñuy libéré yéene kay moom Khalifa Ababacar Sall nee na dàqul dialogue waaye en tout li am ba des daal moom Khalifa nee am na ab dialogue secret maanaam am na waxtaan woo xam ne jamono ji ma ngi am ci suufa waaye nag ñiy waxtaan ci suufa lan la ñuy waxtaanee moo xew loolee kàddu yi Khalifa Ababacar Sall la yéene yi nga xam ne yëkkati ko ci lu jëm ci ñi nga xam ne ñoo ngi leen di génn ci kaso bi journal bi nag la mu jàpp mooy Khalifa Sall ak Barthélémy Dias ay mécontent nettali li nga xam ne moo xew Mbuur journal bi nag nee na Ousmane Diop mi nga xam ne mooy directeur campagne Bassirou Diomaye Faye ca diwaanu Mbuur moom nag ab otoom dañu ko taal te ki ñu tuumal mooy Cheikh Issa Sall yéen kaay gi di express xëy duñu xibaar naan ñu libération gi ci kaso yi jamono ji mbir maa ngi mel ni tulleeg ñi nga xam ne ñoom la ñu doon wax naan leen yéen ay terroriste ngeen yéen ay forces spéciales yu Pastef ngeen ñooñe la ñuy lii nag li muy firndeel mooy ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk réew mi bëri na lu ñu doon tuumal ay goro maanaam lépp ay caaxaani kese la yéen kaay gi di réveil quotidien xëy

tribunal ko ci commissariat bu ginnaaw raay am na tamit ku ñuy wax Aïcha Ba kookee tamit nee dañu koo torturer daal koy firnaal ay heures yu bare bare Azora Fall Azora mi nga xam ne moo doon drapeau Sénégal bi bu Ousmane Sonko taxawee kookee tamit dañu ko jàppoon dugal ko ci kasu bi génn nañu ko ci kasu bi waaye bi ñu koy génne dafa feebar ay beeke lay doxee jamono ci yéene kaay gi mi ko di jenxëy duñu xibaar naan ñu Mamadou Lamine Massaly fan yi ñu tentative d'assassinat Mamadou Lamine Massaly moomee nag ginnaaw bi ñu ko convoqué déglu nañu ko nangu nañ pistolet gi